mbokk yi ngeen baal ñu Sidi Bakar Moulay Abdoul Aziz mi ngi nuyoo bu baax di wax salaamaaleykum wa rahmatullah ne ci ndigalu kilifa yi ne ci lay yëkkati kàddu nuyoo di leen wuutu ñoom ci waxin nag waaye daal ci waxin ak jëf ak ci jëm mënu la ne waaye daal ñu yëkkati seen kàddu rek nuyu mbooloo mi fi toog ñépp bu ñu fi waxee nit bismillah it xanaa wut yàlla rek xanaa wut yàlla rek waaye ñun ak yéen ñun ñépp ñoo fi bokk yam kilifa yi tey leen ko waxee woon démb kilifa yi tey xam ngeen niñ leen ko waxee woon démb dañoo am gan guñ doon teeru dañoo am gan guñ doon teeru nekk ak moom ba waxtu wi ñu ni nag ñun ñii ñépp nañ leen fi wutu ñoom toogal leen fi joxe seen ngant te loolu nag ngant la waaye ñoom daal yàlla na leen yàlla defal tawfiq defal nu ko ñun ñii ànd ak ñoom ñépp nag te ànd bii nag yàlla na yàgg yàgg na gaa ndax fii lañ ko fekk waaye yàlla nay gën di wéy dem nag ba ci sunu sët ak sunu sëtër ñeeg sëtaat yal na ko yàlla def te lu fi def ko nangu ci barke muhammad ne dañuy ubbi wax ji rek du yàgg ngeen déglu ko yéen ñépp ñu wax tuuti rek ndax sëñ Babacar moo ne woon tey nañu waxtaan tuuti rek li ñuy li ñuy wax it euh, dañ leen di laaj ndax man la ñuy déglu wala wax ji lañuy déglu wax ji la ñuy waaye dégluwu leen ma de ah, déedéet alladina yastamiuuna fa yattabiuuna kon du man ngeen di xool du man ngeen di déglu da ngeen di déglu li ñuy wax rek bu bu dee yàlla kese la ñun ñëpp ñu bokk ko jëriñoo lool noonu la ko yàlla bëggee waaye waxuñ ni sëriñ Baye ngay wax nañ déglu sëriñ bay déedéet sëriñ bay moomul wax ji wax ji wax ci yéen dafay dal ci kawam fabda bi nafsika fanhaha an ghayyiha fa ida intahat minhu fa anta hakimu kon ñun ñi ñun ñëpp man mi wax ak ñëpp ci bokk ñëpp ci bokk yàlla nee na yastami'una al qawla dañuy déglu wax waaye bu ñu demee wax joo gis am na seggit daaw góor yàlla bëggulul jullit li ñuy wax bien déedéet bien baaxul ci jullit déedéet waqulu linnaasi waaye waqul waqul waqul li ibaadi yaqulu lati hiya foofu la jullit war a tàmbale bu xasee ba tudd jullit rek foofu lay tàmbale ñu tënk wax ji nga xam ne rek sunu ñaari kilifa yi wax nañ ko fi bërki démb ak démb muy sëriñ Babacar Sy Mansour di Hadj Malick Sy Maodo ñu jéem tënk rek tënk bu gàtt nag lu ñu fi dajale mbokk yi sallallahu alayhi wa sallam moo ñu fi dajale pour lan màggal lum ñuy jëriñ ah, màggal guddi juddu Seydina Muhammad guddi gi dafa màggul luñ ci màggalati fàttalente rek fàttalente rek kenn ku ci nekk fi mu toll ni jamono mel كان كوتشي نيك ورنغا دوات سيتي كان موي رسول الله خمر رسول الله بلا غي خم شيخ الحاج مالك الحاج مالك لو كنت نيو خمكو موم لا ييتي وون با خمكو با تخ نيو خمكو لي موي ديف با تخ ني داجي في نيون نييب رسول الله موتاخ وليس لي عمل القاك سوى المحبه و كون نيون نييب ñu togat kenn ku ci nekk man mi wax ak ñun ñëpp ci bokk yam gis nañu ni zamanu mel te képp ku roy rasulillahi xaaj maari wax na ko démb ah, est-ce que yonent bi mës na jàng alquran ci moom la wàcc mujj mu nekk alquran ku ko xool gis ci moom ñun nag lan la ñuy gis ci ñun lan la ñuy gis ci ñun ñun kaana quranan yamshi bayna yonent bi alquran ju daan dox ci biir nit ñi la jéego bu mu jéego nga xam aaya bu mu toll wax bu mu wax nga xam fu mu toll loola tax ñuy def gàmmu ñun ñëpp ñu mën a roy ci sayduna muhammad laqad kaana lakum fi rasulillahi uswatun xasanatun liman kaana yarju llaha واليوم الآخر وذكر الله كثيرا ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله وراء وصدق الله وراء وما زادهم الا ايمانا وتسليما كون يون سونو گم دا فا ورا يوك ولا دا فا ورا واجنيت لولا تخ بقي ني نيب ني باي سونو نيك داو نيو دي نفرات كان موي سيدنا محمد يالا نينا بون كو روي رك ان ادك مول قل ان كنتم تحبون الله بان سيرني كو ساني واخ قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله bu ngeen may topp yàlla di leen bëgg waaye topp ko ci juddoom wala ci meloom wala ci li ko yàlla sant ak ci li ko yàlla sant ko defee nag yàlla ñu yàlla boole jàppale sëñ Babacar dafa ñëw rek daal di commencé nuyu nit ñi nuyu kilifa yi nuyu ñëpp wax ni bis bii ñëpp ko bokk amul tariqa kon alxalqu kon atturuqu ila allahi كنفوس بني ادم لكن التوحيد واحد يون يجم تي يالا دا باري لول واي يالا كين رك تي بير يون يوي نك تي لا ني نيب ها سبولنا واخ ديد سبولنا نيون نيب نيي سوبو تي يون واو ان هذا صراطي فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به kon ñun ñëpp yàlla nee na nañ ko royal rasulillah waaye li ci neex ba mu demee ba ca biir def ni minal muminina rijalun sadaqu ma ahadullah alayhi fa minhum man qada nahbahu wa minhum man yantadir waaye maa baddalu maa baddalu tabdilan soppiwuñu wuñu ñun nag mag ñi fi jaaroon wuñu soppeekuwuñu ma ne ñun nag ko defee sëñ Babacar wax loolu benn waxkat seen maam Seydi Hadji Malick wax na ko الطرق كلها إلى موصلة مسلكة kon ñun ñëpp ñu ngi wuti yàlla benn yoon wi rek la xuloo jaru ko dogoo fi jaru ko am na ku yanu loo yanuwul boo manqué le mu jox la ko waaye bu fi xuloo amee te nga manqué le te moom moo ko yor foo jëm kon ñun ñëpp sëñ Babacar wax na loolu mu boole ci gàmmu Seydina Muhammad neewul Seydina Hadj malik rek ko moom waaye yàlla baaxee na ko nag ci moom la gën a siiwee waaye ca jeexit wa mu ne sàkk defuma ci dara cofeel ak bëgg yàlla rek tax ma di ko def siwal mahabbati wa taazimi wa salami bu ko defee nag ñun ñëpp ñu war a ommatu ci loolu bokk yi ñun ñëpp ci war a ommatu ñun ñëpp bokk yi nañ ommatu ci loolu benn bindkat nee na kun waaxidan li waaxidin ala tariqin waaxid nekkal kenn pour kenn tegu ci wenn yoon muy yoonu borom bi subhanahu wa taala kenn rek kay sëriñ muy seydina muhammad ci moom la ñu roye moo jàngal ñëpp moo tax ku fi dóor dënn it xamuloo moo tax ci ci loolu rek Abdul Aziz ci la ñu mën a dimbalee rasulillahi jàngale ak jàng ak jëfe jëfe ci la ñu dimbalee rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam ñun ñi fi toog kenn ku ci nekk war naa jël boobu position di jàng di jàngale tey jëfe di jëfe wallahi moo tax tawxid lenn rek ko tax a jóg tawxidul insaniya fekk fexe ba ñépp nekk benn kulluha fi xuquqin waxida ñoom ñëpp ñu bokk benn xàq boo xam ne bii ñoom ñëpp ci la ñuy tibbe di ko jëriñoo te di ko sante borom bi subhanahu wa taala tegu nag ci benn njub ihdina inna hada ngoog wal hadi ila kon njub gi benn la du ñaar bu ko yàlla defoon ay yoon kon mu kon ñu bari jaaxle waaye benn yoon rek la ko def jiital rasulillahi nag ñu gëm kenn kenn la ñuy gëm muy borom bi subhanahu wa taala yàlla kenn la du ñaar du ñett mbokk yi yàlla ñu yàlla jàppale nag te mbokk yi ñun ci lan la ñu ommatu dañuy waxtaan man waxtaan laa man woon ma waaw ci lan la ñu ommatu est ce que ci lislaam la ñu ommatu lu ñuy doxal sharia nan la nit di baye sharia bëgg nek julit do top sharia do top li yàlla digle déggoo ñu ne ben way néna al muraadu bi tariqati huwa al ishtigaalu bi maqtadathu shariatu wal haqiqa li ñu nam ci tariqa deug deug moy nga yitté wo li sharia ni defal nga def limni ne bàyyi nga bàyyi te xam sa borom subhanahu wa taala motax nit ki dafa wara top ndigal ndigal yàlla subhanahu wa taala ci lépp loo xam ne yàlla bëgg na ko te mun la nga def ko jéem ca loo mën ba mu sotti loo mën ba mu sotti Abdou Aziz ñëpp dañuy jéem ba àgg waaye kenn tëb tëb lu def mu sotti jéem rek ki mën kenn rek la muy yàlla ku fi jaar da ngay jéem nga fexe ba am ngërëmam jël sa dund yépp kalkali ko noo koy tege ci yoonu yàlla ba lépp loo def mu neex yàlla

ragal moo tax euh, seen góor ga Cheikh Alhaaj Mouhamadul Mansour ku mu tàggat fexe na ba nga ragal yàlla lépp ragal la ناء في تخليد فرد على الابن شكر الوالدين ومولاي والد البر يا استاذ زنديد عبد العزيز دا تب واي امنا لو مجانوك بايام بي لاجتوكو امنا لو مجانوك بايام بي لاجتوكو افيل بسيطه نانا جاك بايام ni ko ndax am na kenn ku nekk ci ndend li ku ñu war a nekk jaamam ku dul yàlla bi ko bàyyi bi ne déedéet mu ne subhanahu min ilahin wahidin samadin lahu lbaqa wa sanaun fihi taxlidu shukr fardun ala al ibni boo demee ci waqada rabbuka alla tabudu illa iyahu foofu la sukkandiku wa bil walida ihsanan wa bi tuddati waaw ci alquran la ko teg waaw anashkur li wali كن مسات واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين قل تعالى واتلوا ما حرم ربكم ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين سيد الحاج سيد الحاج منصور كان الواي دنجو يار نك دنجو يار دنجو يار كو يار دنجو يار كو يار دنجو يار موتاخ مبوك يي بارينا تي تي نيون duma wax tudd kenn bari ma ci ñun ñun ñun la wax ñun ñi fi toog ndax ñun ñoo fi toog di wax ñoo xam ne judd nañu ci diine ci ndey ak baay waaye xamuñu dëgg-dëgg lu leen lu leen boole ci diine ndax judd la wala déet sëñ Babacar Mansour wax na ko fi kanaan ba yàlla ne yonti yonti yàlla noox liggéeyal gaal gi ba pare nga woo say bokk bi gaal gi pare mu ne yaa bunayya irkab maana wala takun qaala sa aawi ila jabalin yaasimuni min alma qaala laa aasima alyawma min amri illahi illa man rahima waaye wa xaala baynahuma almawju fa kaana min almuhraqina wa qiila yaa ardu blaaci wa yaa samaau aqlici wa qiila almaau wa qudiya alamru wastawat ala aljudi wa qiila bucdan lilqawmi ba mu nekk doom kaay yéeg mu ne ko bàyyi danaa yéeg ci doj wi mu ne ko doom bu yàlla santaane léppay rattax doo am foo jafandu mu dé mu dëgër bopp dem yéeg ca doj wa ba mu yéegee ca doj ba ndox mu ñëw alak ko xolu waajur jóg mu ñëw ni ko inna nii min ahli ay yàlla yaa ma bind yaa bind xale bi waaye sama doom la yàlla ni ko innahu laysa min ahlik bokk leen dara da nga ko jur rek waaye innahu amalun xayru saalih daraam baaxul ci moom ñun ñu bëgg a jël juddu rek aj ko ci Cheikh Al Hadji Malick pour aljanna ëllëg ñun ñëpp wallahi nañ ko nañ jaamu yàlla Abdul Aziz bu subaa bu ndekki danaa ndekki danaa danaa ndekki waale dégg nga boo boo maree bul naan danaa la ma naanaane dégg nga waaw bu subaa waaw dégg nga waaw a ndekki bañ naan bul nelaw sax ci guddi gi tey boo demee toogal rek dina la nelawaale moo tax askano ci lislaam nit ki li mu askano da koy xam nit ku xamul boppam baaxul daaw góor nit ku xamul boppam baaxul ba tax na ñooñu ak lislaam soriyoo nañu lool islaam ngi ci waat waaye bokk na ci charte charte yi gën a fort ci lislaam nga xam lu la boole ci lislaam ba tax ngay askanoo lislaam lan mooy pas-pasu jullit dëgg-dëgg pas-pas bu mucc ayib bu mucc bokkaale pas-pas boo xam ne bi doon yàlla ak alaaji maalik alaaji maalik jàmm la koom yow yàlla yàlla la kenn wax bu soobee yàlla ak alaaji Malick déedéet déedéet ak ya alaaji Malick may ma déedéet yàlla rek kay maye ku dul yàlla doo maye moo tax Sénégal dañ dellu si dëkk la micro rek nga naan yàlla ak diw bu dul woon ak diw mais bu dul woon yàlla kenn du am kenn du am kenn du am nañ dellu si ci du yàlla te du ko nekk mukk buñ dee jëfandiku li yàlla def ci moom ci la ñuy sukkandiku ñaan ci bil amal saalixi laakin du judd waaw ci am jëf yu baax yu sell yi mu daan def ci la ñuy wax defe tawassul atawassulu bil amali saaliha waaye atawassulu bil ansaabi mukk moo tax lislaam du baat yu ñuy wax lislaam du drapeau du baat yu ñuy dend rek kii di baamu kii di baamu déedéet lislaam qawlun wa amal waaw da ngay wax ba pare jëfe te jëf ja dëggu wax ju dëggu ànd ak jëfe ba pare jëf ja sell teg loolu mooy lislaam waaye euh, di mébét rek di mébéti yi mébét yi loolu du lislaam lislaam da ngay tàmbale ci la nga mën ba keroog a àgg ci la nga tële woon loolu mooy lislaam bu ko defee nag sunu pas-pas yàlla na ko yàlla sellal te mu dëppoo ak sunna ak sharia lu dëppoowul ak sunna ak sharia nañ ko wàcc دون تي دا فا جوغي سي شيخ الحاج مالك اك سي سنه سيدنا محمد سونو ماك ني باخ ني سونو ماك ني باخ ني ني في بايل لي انا بوبو ياني سولو انا دال لي انا انا لپ لو سي بير سوف تك ني بايل ني في لو تول ني ني موي لين تي واي ام لو كوي دغرال تا ديكو سلال موي نياك دوندي ñaq dunde wax ci Sénégal koy fu mu ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولا سم بأغذه إلا أن تغمدوا فيه واعلموا أن الله غني حميد الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة وفضلا والله واسع لجي باخنا waaw waaye di bañ di ñaq di tàllal loxo rek wóorul wóorul Abdul Aziz Abdul Aziz dama dugg si ci jàkk ji ànd ak ñàpp lu tooy xepp julli ndax ndax ndax julli gi baax na am déet jàpp naa dugg naa ci wanag wi def naa li ma war def naa lépp dugg si jàpp ndax mën naa julli jàpp naa yëngatu naa wala julli naa ah. bu li may lekk leewul nag moo tax Abdou Aziz yàlla ñu yàlla jàppale sunu mag ñu baax ñi seen maam Cheikh Alxaaji Maalik ñi bu demee ba amul lu mu lekk lu mu ñàkk lu mu dundee day toog ku dem bay dem Njaasaan di seeti kilifa gu fa nekkoon fas wa mu waroon sëgg dagg catu ngooñ mu wàcc fas wa ni fas wi mënatu koo war ndax dunde na ñàkku jàmbur wallaahi te Njaasaan la doon dem romb tool yi benn waaye romb ko ni ko góor gi mu ne ko sama fas wi de dafa dagg catu ngooñ bi te xaw ma ku moom tool bi waa ji ni ko demal danaa ko wax mu ne ko déedéet du sa yëf sama yëf ak yàlla la ak moom wala xaw ba ñu wooyu waa ji mu ñëw mu wax ko waa ji ne ko jëggal naa la ci xol bu sedd mu ne kon de mën naa ko war waaye bu dul loolu du ma ko mën a war dem na di bay tool ba ñu bëgg àgg ci digg wa ñu ne ko digg waa nga fële mu ne déedéet bu ngeen ma ko xool la ma xool la ca kanam te borom da koo soxla bu ma ko laajee mu jox ma ko kon nañ bay ba àgg ci digg bi rek moo wàññeeku moo tax ñun ñu war a góorgóorlu bu baax ci li ñu nekk war cee jàppaat bu baax kenn ku nekk di vérifier sa bopp ndax bokk nga wala bokkoo wa il faut que ñu vérifier sa xaasibi nafsa قبل القيامة تربح دون خسران آه. حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا نيت داي رجل بابا نيت داي رجل بابا نيت داي رجل بابا نيت دو خيرك دي دم نكم جنار فوق نتشامبر سبب باك سيد حاج منصور نينا رجل السبب بخم فينجا جم بودة دم تيوان لولا فيوب ngani burdu ba mu nekkoon bu burdu ba tasee wàññeekul ñibbi waaye wañ jóge tiwaawan di jàdd ci yoon di jàdd ci yoon dem ba sa kër guddee di ko jiin du tiwaawan يوا moo tax sunu mag ñu baax ñi ñoo nekkoon ñu ñu seedeel seenu mbaax du juddu la ñu seede ci moom xam-xam ak ragal yàlla la ñu seede ci ñoom ñi ko am ñëpp seen mbir a gi sax waaye ñi ko amul ñëpp coow fa des wallahi abdul aziz coow fa des te bu moo tax am yoo xam bu ñu bu noppi amee rek musiba bu noppi amee rek musiba am moo tax sunu borom subhanahu wa taala wax ñu walladina amanu wattabaatuhum zurriyatum bi imaanin alxaqna bihim zurriyatihim te wa ma alatnahum min amalihim min shay mag ñi fi jóge woon Seydil Xaaji Malik fa mu jóge léegi nag dañu ñëw benn bis ni ko dañu bëgg nga wax ñu yaay kan mu ne man kat tekkeeguma di nekk ci man yépp dañ ko def ci man bàyyi leen ba ma màggale ngeen xam kenn moon Maodo ñun de est xam nañu suñu bopp ah bopp mooy sunu njaboot foofu la ñuy yàlla di atte tilka na te dullu alayna fanzuru baadana ila al asaari لا سونو نجابوت لا نيو يالا دي اتي يالا دو ني اتي سونو جيف سونو نجابوت لا نيو اتي واو كلكم وكلكم وتسي سونو باب سبحانه وتعالى نه والذين امنوا واتبعتهم ذريتهم بايمان شرط شرط شرط ني جيم يالا te seen njaboot topp leen ci gëm yàlla ga ñu yàlla dootul xool seen manqué manqué bi da leen di yéege ci seen liggéeyu baay waaye bu fa ngëm yàlla amul nag yàlla ci yàlla musal refee ñun ñëpp ñu bàyyiwaat xel loolu mbokk yi bu baax a baax a baax a baax yàlla ñu yàlla boole jàppale guddi na guddi na ñu yemale ko foofu yàlla boole ñu daal bu ñu demee rek ñu rafetaatal jikko yi ñu defaraat jikko yi bu baax a baax ñun ñëpp man ak ñëpp ci bokk yam bu ñu demee ñu seetaat suñu bopp Seydi Hadj Mansour nee na boo xëyee bala ngay dem laajal foo jëm boo demee fi nga dem ba wàññeeku nee na toogal xool fi nga jaar ndax yépp lu yàlla bëgg la wala lu yàlla bañ la loo fi teg bët loo fi déglu loo fi wax waa lépp yàlla da koy laaj léegi waaw boo ñëwee vérifier sa bopp vérifier sa bopp bu baax a baax bu baax a baax maa yantiqu anil hawaa in huwa illa noonu déedéet am na lu ko yàlla waxeen wax ju nekk dana ko laaj ah mbokk yi wax ju nekk dana ko laaj bu ko defee nag ñun ñëpp bu ñu demee rek ñu wëlbatikuwaat ci xale yi wëlbatikuwaat ci xale yi ndax ëllëg maa ngi gis benn tafsirkat nee na di nga gis ku ñu jox aljanna mu dem di di dem aljanna waye doomam ñëw ginaaw ñu ne waqifuhum innahum kon ñun ñëpp ñun ñëpp ñu gor gor lu war rek mbokk yi ñun ñëpp ci bokk yam man mi di wax ak yéen ñun ñëpp ci bokk yam ñëpp ci bokk yam ñëpp ci bokk yam yàlla nak ku bax la ni ko Cheikh Al Hadji Malick waxee yàlla ku bax la lol lol lol deggo ben way neena allah allahu in tarakta su'alahu hina yusalu waaw nee na daaw góor boo demee ba sa bi bëccëg neex nga julli tisbaar la nga daan def di ñaan yàlla ñaanoo yàlla yàlla mere na la ndax poos bi fees na rek tax na ñaanoo yàlla المستكنين مقام من دعاك إن لم يكن لم dañuy yàkkamti ci ñaan yàlla yàlla ni falaata tastaajilu ni xam naa lépp bàyyi leen ba rekk ci ndànk-ndànk waaye bu lépp sottee rek ngeen jóge fi kon def leen ko ndànk-ndànk muy njëkk ndànk-ndànk waaw waaye waaye bu yépp ne yëpp ne yëm lu ñuy wax ci xam nga wërsëg mag ñi leneen lañ fu mu jeexee rek nga tàbbi fu mu jeexee rek nga tàbbi foo jëm ah. ah lan wërsëg kañ du gaaw bu jeexee boo boo jeexalee kañ ku jeexal kañ saye jeexal say kon nag mbokk yi yàlla ñu yàlla boole jàppale ñun ñëpp rek yàllaa ngi fi di jéggale waaw am na ñoo xam ne fii ak ñu ngi jéggalu rek ulaayika yubaddilullaahu sayyi'aatihim xasanaati ñu rafet njort rek waaye kenn ku ci nekk nag war ngaa bàyyi sa bopp sa xel ñun ñëpp ñun ñëpp ñoo ko bokk ñoom ñépp a ko bokk dañuy waxtaan ni rek pour kenn ku nekk bàyyiwaat yàlla sa xel bu baax ndax ñu ngi daw jóge fu nekk di ñëw dabawuñu lu dul yàlla yàlla jooj ñuy daba moo tax mu ne wattabaatu zuriyatum bi imaanin donte ne imaanin naaqis la donte ngëm gu matul la mais yàlla dana leen yéege ca jëfi bàyyi yàlla nañ ci yàlla boole nag waada allahu alladina amanu wa amilu salihati la yastaxlifannahum كما استخلف الذين من وليمكننهم دينهم الذي ارتدى ويبدلنهم من بعد خوفهم جزاكم الله يالنا يالا فاي يالنا يالا فاي يالا بو يالا تسياكار يالا بو يالا تسياكار اي جوليت بو ني داجي داني وقتان رك واي كين واخول ني كين لا واي نك وقتان باخنا ني فخه رك balay déwén rek ñoom kenn ku nekk ci ñun jël ci jikkoy Seydina Muhammad fukki jikko fukki jikko ba ca njëkk nañ jël ak sidqu waaw fexe rek lépp luy dëggu rek waaw wax dëgg ak dëggu nag du benn déedéet nit war naa wax dëgg te dëgguwul te ki jàng alquran lu muy wax lan la est-ce que dëggu na foofu la mooy problème bi yàlla ku ku dëggu lay fay du du fay kuy wax dëgg fabda bi nafsika fanhaha an xayyiha fa ida ntahat minhu fa anta xakim kenn ku nekk ci ñun xam nga la ngay nekke ko defee dëggu ak ak amaanatu waaw ñaar yooyu daal luñ ci mën ñu bàyyi ci xel bu baax a baax a baax te sunu làmmiñ ci lépp lu sunu yoon nekkul yàlla nañ ci yàlla dimbale nag yàlla nañ ci yàlla maa yanti maa yalfazu min qawlin illa ladayhi raqibun atid kuy wax rek na wax jàmm kuy wax rek na wax jàmm loo mën a wax yàlla bind bu dee xàqu jàmm la nag ci la rawati bu defee itam lépp lu ñuy tudde jëw ñu moytu ko lépp lu ñuy tudde jëw daaw góor mag ñi ku ci mës romb fu ñuy jëwee ba dégg ca dara boo demee da jàppaat jàpp ni sa njàpp toj na dégg ga rek doy na bu amuloon kuy dégg dara du xew kii wax moom lu koy fekk yaa ko jàppale bu gisuloon lu ñu toog lu ñu tax a toog fii ah kookoo ñu ëpp musiba waaye seen maam jii nee na xam nga njaalo dafa xaram bittifaaq waaye fanweeri njaalo yu tegal moo gënal yàlla toog di déglu jëw bu amul kuy déglu kenn wax ñu téye itam sunu làmmiñ ci deru gor yi lu ñu ci mën lu ñu ci mën lu xam ci ñoom nañ leen ko wax ci secret waaye publicité lu bon kenn du ko def yàlla nee na man yàlla ku bari kersa la waaye li may bari bari kersa sama sutura bu fekkoon ni ku def man la fang kenn dootul ñaanloo kenn benn mag dañ ñëw ni ko di ko ñaanloo mu mu ne cel daañu ni ko waaw góor gi yow de dañ lay ñaan doo nga ni ceel mu ne ki leen yebal ci man ni mu ma xamee bu ngeen ma ko xam woon fu ma jaar du ngeen fa jaar daal di say téye rek allahuma la taxrim na xayra ma indaka bi suui ma indana bu ñu xañ mukk mukk mukk yow sunu borom yiw nekk ci yow ngir sunuy ñaw ñaawteef yu bari yërëm ñi rek bu ñu topp waaye yàlla du yekk ci ndab lu tilim su ko defee ñun ñëpp mbokk yi nañu jéem nañu jéem lu ñu mën dañuy wax naan atbii sayiata alxasanata tamxuha boo wax boo defee lu bon teg ci lu baax mu effacé ko waaye fexeel fexeel ba boo waxee lu baax bu ca teg lu bon bu ca teg lu bon waaw xam nga sa góor gi Maodo nettali na ko fii ak Sëriñ bay ni dafay bañ lu bon jaar ci xolam la jaar ci xelam amna ben mak mo xamni neena mom ba mu tuddé la ilaha illa allah ci ñam la na fi wara jaarati lu dul laa ilaha allah nopp bu dégg la ilaha illa illallah abdul asis loo cee déglooti làmmiñ wu ne la ilaha illa allah lo ci waxati bët bu tegu ci la ilaha illa allah loy xolati moo tax tariqa yi tariqa yi tariqa yi sëñ Babacar ak Maodo wax nañ ci démb ku ci jàpp rek jàll waaye buñ ko def nag ci làmmiñ rek astaghfirullah alladhi la ilaha illa huwa alhayy alqayyum astaghfirullah alladhi yooyu yëpp na dëgg rek tey dëgg ci yow استغفروا ربكم إنه كان يرسل السماء عليكم ويمددكم بي و ويجعل لكم ويجعل لكم ما لكم لا ترجون لله كون ني نيب بو ني دالال كين كو نيك نا يور سا كورس بوب كين كو نيك خامغا لا نغ سيق اك سا بوروم واي كين كو نيك تي ني نيت خامنا لا مو سيق اك موروم كين كو نيك تي ني خامنا لا مو سيق اك بوروم تا يالا دوبالي حق جامبو yokku ya sabab lu bu bi qul min suima adabin sabab lu leen te leen sukkandikoo yangu te bu leen sukkandikoo yoon bu ya inna arraja la fi waadin kada tamaun del tegtaloo dara sogga yaakaar dajo alal ya sababu lu leen te bu leen sukkandikoo yoon ya sababu من كان ذا حرفة فليحيها أبدا موغن سقا دمدي تومان يلا أك دكيا سبب لولي واو تبولي سكادكو يبويا سبب لولي تبولي سكادكو يبويا وروشكا يد يا قومي بلا عمل def di tiit dafa mi am ca mbir sabab ya way sababu lu leen waaw bu ya sabab lu leen te ya ñi wax nañu yal nañ ci yàlla jàppale nag mu ñun ñëpp ñu bokk jàng fatiha salaatal fatiha yal ñu yàlla boole jàppale yàlla bu yàlla tas suñu yaakaar bu kenn weer boppam kenn ku nekk yoral sa kurus jéggalu sa borom waaye kenn ci ñun bu mu weer boppam boo demee ba sa néeg rek jógal julli sa ñaari rakk toog ci waxtu fii ak une heure ak deux heures du matin <coughs> yaa ngi dégg borom bi naan hal min saa ilin هل من مستغفر كون كي كان لا كون داخ امنا كو ام سوخلو نيان ماما فاج داخ امنا كو ام بكار جيغلو ماما جيغل كو كو دافي نك نون نيب ني دغراتال سونو ياكار رك رحمه الله وسعت كل شيء واو دغ لا فسا اكتبها للذين يتقون واي نين سبب لو رك يالا نيو يالا بولا جابالي كو في جوغي يت كو بايي وون جاب كو في جوغي وون كو بايي وون بو ديمي جوخ كو da nga koy ñaan te yàlla dong tax ku fi jóge woon koo bàyyi woon jox ko loxo te yàlla dong tax ñu jàng fatiha salaatal fatiha